tali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo fulla mooy jaay Dakar te fulla day ànd ak fayda yéenekaay gii di Rewmi Quotidien L'Observateur Vox Populi Sud du Quotidien yéenekaay yépp xëy dikkal ñu ci conférence de presse bi nga xam ne kuréel gii di ñoo lànk ñoo bañ ba tëdd sa naaj wa doon nañ ko amal ni niki démb la ñuy waxtaane sa seen conférence de ba mooy woo askanu Sénégal gi yépp ñu daal di génn amal am manifestation ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal ba pare sàkku ci nguurug Sénégal mu deltu ginnaaw ci courant bi nga xam ne daal na koy yokku teg si nag sàkku ci nguurug Sénégal mu bàyyi Sagna ak ñi nga xam ne ñoom lañ leen tegoonoon loxo ndax ñoom jàpp nañ ne jàpp googe ak yokk courant bi teguwul fenn coalition ñoo lànk ñoo bañ nee nañu nag mbir mi duñu ko bàyyi mu sedd danañu ko xeex ba sa cëppaandaw ga luñ si góobee gar ko luñ si boxam yeey yéen a kaay giiti réew mi quotidien mu ñu xamal ñu collectif ñoo lànk nee nañu àjjuma ji nga xam ne moom la ñu dëg ma la maanaam dañ fiy romb place de l'Obélisque dem ba place de l'Indépendance ñoom a amal a a dëgmal dina a ajjuma joo xam ne ju saf sàpp a doon ajjuma joo xam ne kaani lay saf ak poobar ndax ñi nga xam ne ñooy coalition ñoo lànk place de l'indépendance la ñuy te ñoom sax leer na leen nañ ñi ne préfet bu ndakaaru maanaam du jox autorisation ci libération ñu fekk leen fa la xam le nee nañu autorisation ak ñàkk autorisation la ñu yemale danañu manifester ci nii wala ci naa place de l'indépendance maanaam ci Sénégal la bokk te kenn mënu leen ko te décret ndax adduna bi yëpp xam nañ ne constitution moo gën a fort li nga xam ne mooy ab décret ministériel yéen a kaay gi di libération mu ñu xamal naa ñu ñoo ngi jëm ci vendredi choc maanaam vendredi boo xam ne dina saf sàpp dina tar yéen a kaay gi mu ñu xamal naa ñu Guy Marius Sagna ak ñoom docteur kër Diop tey ji si àllarba ji ak suba ci alxame ji dana ñu leen déglu wal fajir yéen a ne jamono ji état bu Sénégal ma ngi wut porte de sortie état bi jamono ji nu mu def ba bàyyi Guy Marius Sagna ak ñoom Babacar Diop jamono ji moom lay wër te nag la ko waral mooy nga xam ne ërtal na nañ ko nguur gi ak pression bi nga xam ne collectif ñoo lànk daan na ko te nguur gi wal fajiri ne na moo tax état bu bëgg def ay dëbbal dëbbalam ba bàyyi Guy Marius Sagna ak ñi ñu ko téyandoo la ndax jamono ji mbir mi dafa wexaat ci ñoom yéen gi mu ñu xamal ñu étudiants yi nekk université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ni ki démb wàccoon nañ ci mbedd mi doon sànnante ay lacrymogène ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi ma safoon na sàpp réew mi quotidien mu ñu xamal ñu CDES di syndicat bi ëmb jàngalekat yu Sénégal ñoom nag ñoo ngi dàngaa fu nguurug Sénégal ko bàyyiwul maanaam ñoom nee nañu nag danañu jokkoo ak juridiction internationale maanaam jël xeex bi internationalisé ko yéen a kaay gii de la témoin mu ñu xamal naa ñu manifestation yi nga xam ne askan wi dëkk Kër Massar ak Malika doon nañu ko amal ngir nag ñu tëj mbëbës am nañ lu leen neex ca mbir ma ndax Abdou Karim Fofana mi nga xam ne moom lañ dénk wàllu woowu daan na koy wax nee nañu nag état bu Sénégal jël na dogal ngir tëj li nga xamante ni mooy mbëbës ndax askan wa dañoo jàpp ne mbëbës googee maanaam feebar la leen di yokkoo neexul ba neexul waaye nag assemblée nationale maanaam seen dara leerul hors la loi assemblée nationale dañoo lànk kandaare bañ a rendre compte ci ni nga xam ne moom la ñu xaalisu réew mi te nag moo ne assemblée nationale googee ñooy voté loi yi waaye ñoo dàq jalgati ay loi ndax Moustapha Cissé Lo wax ne assemblée dañu ko war a ndax amul dara lu leer ca mbir ma te ba léegi ni dañu ko tànqamtal yéen a kaay gii di ñu yóbbu ñu Espagne ci match bu rëy bi nga xam ne jamono ji moom la ñëpp di xaar bu 19 jotee diggante Barcelone ak a Dieng mi nga xamante ni mooy manager Modou Lo la mu xamle nee na signé gu lenn ak Luc Nicolaï Jules Balde magu Ama Balde ñu fekk ko ci yéen kaay gi du sunu làmb la mu le na nee na Modou Lo bu ñu tëjee barrières yi dina xam ne ba si góor a koy bay